est que mënoo leen ko étendre ci industrie yi sànq wax nga ko an magist industrie yu bëri fañ nekk naam amul loi boo xamante ne sax maire bi dina ñëw tënk ne entreprise bu fi installé wu war nga jël nombre de de jeunes employé leen mais ban coopération ngeen mën a def ba tey mën a un peu wàññi taux de chômage de seen localité alors ça c'est un problème mmh. parce que population yi seen bopp ñoo ko njëkk soxla ñoo ko njëkk a revendiquer mm-hmm. man en tant que maire j'ai fait quand on est dans une république nga nekk ci institution da ngay tënku ci ay këyit hmm. maanaam les textes ces industries que vous voyez à Anne ku ci ñëw di installé wu mais tu n'as pas besoin du maire ah oui ah oui mais parce que da ngay dem jënd sa eh. terrain ay milliards nga dem monter sa projet hmm. tu vas aller voir ta banque mu financer la ko yenn autorisation yi pour la plupart c'est le ministère du commerce Direct. et le ministère de l'environnement ñoom ñoo la koy jox mm, lui à la limite dafay ñëw seet si le ne la autorisation de construire loo xamante ne urbanisme instruire na ko mm. toi tu n'as que à poser ta signature alors loolu bokk na ci li nga xam ne acte 3 bi ça a été une chose excellente mm-hmm. mais pour man on nous parle souvent de compétences transférées. transférées ouais. Mhm. Mais man le maire que je suis avec ce que je vis dans ma localité. je me dis que mhm. euh, compétences transférées amul njëriñ. Mhm. parce que ce sont nos populations ñooy subir. bu problème amee. Je vous donne l'exemple du port autonome de Dakar. Oui. Le port se trouve à Anne ah, et ah, entre Anne et Plateau. Mm -hmm. Le port a un statut spécial, mm -hmm. d'où port autonome. Mm -hmm. donc c' est un port qui est totalement autonome mm-hmm. ay texam dafa am benn décret bu koy érigé jox ko toutes ses prérogatives mm-hmm. mais vous avez mille camions qui passent sur la route tous les jours da ngay gis camion c'est même désagréable d'aller vers cette zone là surtout le mais da ngay gis camion boo war ñëw gaare camion chauffeur bi dem tëdd beneen ah, commune mm-hmm. en attendant mu mën a dépoter mais camion no koy noo koy embarqué donc voilà on est dans ce combat perpétuel et d'où importance wu point bi nga xam ne moom la ñu wax il faut que les textes là ñu xool comment réserver une place aux communes commune. moi je dis que Hann boo xoolee c'est l'une des communes ou la commune la plus industrialisée fii ci Sénégal mais il n'est pas normal le taux de chômage bi nga xam ne am nañ mais il n'y a pas de redevance il n'y a pas de cahier de